may féliciter d'abord euh, tout membre de l'APR ci suñu mobilisation bu am solo bi nga xamné def nañ ko dembu muy lo xamné dafa ñëw ci waxtom ndax mënuñu comprendre aussi euh, ñu bayyi opinion nationale et internationale ñuy dénigrer notre président li mu wax rek président mérité wul loolu parce que boo xoolee lépp li nga xam ne nii sacrifié na ko boppam ngir Sénégal sacrifié ko boppam ngir Afrique dafa mérité ñu di ko kañ dafa mérité ñu di ko jaajëfal dafa mérité loolu nag euh, ndokk bi ko ndawi APR yi xame président li mu mérité mooy heure suñu xëyee heure suñu waxtu wu ne dañoo war a taxaw di ko kañ di ko jaajëfal jàpp naa ne. y avait des ministres de la république yoo xam ne tey su ñu amee teraanga tey su ñu amee daraja ñu amee man-man suñu manee la ñu man tey président de la république moom la donc kon bu ñuy njukkal di jaajëfal président de la république ñoom ñëpp ki compris ku man di doon dañ fa war a teew ñëw fa taxaw sargal na ko ndaw ña ñëpp defee ñu de ko defee. damay faral di wax ne sénégalais yi buñ leen buñ leen buñ leen buñ leen jàppee ay ay ay ay ay ma dafa am loo xam ne dafa am. président sacrifier boppam ngir réew mi ak jàmmi réew mi ak dalug réew mi am ay candidats yoo nga xam ne taxaw nañ ñu sélectionner des candidats candidats yooyu ñu sélectionner ñu ne am na ci candidats yoo xam ne am nañu double nationalité am ci candidats yoo xam ne ñi ngi ci am ci candidats yoo xam ne ñu ne dafa am ñoo xam ne dañoo ger conseil constitutionnel loolu di lu rëy ba nit ñi jàpp ne conseil constitutionnel gi amatul njariñ pour tek pour organiser ay élections président da di taxaw ne ñi ñu ñi ñu récolté ñu ñëw président président ne len élections yi jàpp nañ ko mënatuñoo dak élections yi liñ ci man moy ngeen xol nan lañ ko wara a defee mbir mi di dem ay tension ay preuve commencé ci génn Rose Wardini am double nationalité kon liggéeyu conseil constitutionnel dafa dess foofu fim mu nii. Karim Wade rek lañ ci xam ne nationalité sénégalais la ñeneen ñi ci des ñëpp kenn ump xëy leeruñu ba xam ay nationalité sénégalais mais loolu dafa garaaw loolu buñ ko fàtte buñ demee ba assemblée national dugal benn procédure procédure boobu am lu ko gàllankoor. loolu ko gàllankoor it ñu xam ne yoon a ñëwaat yoon woowu la ñuy sàkku na leer président de la république la taxoon mu sacrifier boppam bu ñu ko caaxaane bu ñu il est plus informé que tout le monde c'est l'homme le plus informé c'est le président de la république donc li tax ñu élection muy report élection Bobu, muy dafa am ñu ñu guerre, am ñu guerre, nous une dañ ko bu candidat ñun dañu dafa guerre conseil constitutionnel pour que nous fait ay candidat recalé ay candidat Lors dafa la a nous bala muy wax candidat bala ñuy d'accord d'accord na nañu waxtaan d'accord na jàmm mo gën lu dul jàmm ko gën dialogue ci biir coalition benno bokk yaakaar parce que man dama japp ne coalition benno bokk yaakaar ya dee di dañu jiital président ba pare tok diko sétane parce que ñi doon génn doon défendre président de la république gisato ci kenn ñom ñëpp tay lenn lañ wax lenn lañuy sacrifier wu moy que élection yi dafa wara tenir coûte coûte élection yi dafa wara am coûte que coûte élection bu nu demee ba am loo xam ne dañoo xool ne ne am na lu ci lëndëm président wax dañoo war a seetlu loolee ci lëndëm lan la ñàkku indi muy waa PDS indi ne am na lu ci lëndëm ñu indi preuve yooyu bu ñu gisee preuve yooyu ñu sanctionné ña ko def suñu gisul preuve yooyu ñu jàpp sanctionné waa PDS. man dialogue bi dama jàpp ne gis nga ci mag ñi ba tey dañ doon dialogue réew mi dialogue moo ko yor réew mi dialogue moo ko moo moo moo ci dialogue la ñuy dox ci dialogue la ñu war a wax. kilifa diine yi ñu fi nek seigne abdou aziz ñor joge na touba ñew dëyoog seigne cheikh mati lay tok waxtaan ak mom waxtaan bañ umma islamique bi doon benn koriteeg tabaski kañ goko fi gëj gis waxtaan ko laaj loolu yëpp ay dialogue la kon donc ñun way politique bu ñu bu ba mënatuñoo dialogue man japp na né le président waxon né nañu def attention nañu def attention gogou nak dañ ci wara bayyi xel bu baaxa baaxa baax gis nga adversaire boo munta ak mom ci tapet la bokku opposition nañu dem jàkkaarloog président waxtan ak mom wax ak ñom seen vérité man Mara job di duma genn aper mais luma metti lu ne ci bir aper la koy faje candidat bi nañu wax ak mom président na wax ak candidat bi pousut yaxasut dafa wara pous yaxat bu ko munta def nak ñu xol neneen lu ñuy def nak mais ab candidat nga am ko ñun département de djourbel gi ñu nek tay candidat bi bañu ko biñu ko falé candidat ba légui tegul tankam djourbel waxut ak waa Jurbel xamul ci dara ci biir Jurbel mu bëgg nag ñun ñu ànd ak moom dama ne na ñu waxtaanaat ci biir parti bi bu ñu waxtaanaatee ci biir parti bi solution dana génn. waaye nag dialogue bi moom nañu ñëw dialogue recommencé waat mbir mi à zéro toog waxtaanaat suñu biir.